loolu moo waral volontaires yi les stagiaires comme les anciens ñu indi leen fii à Ngane Alassane dans la commune de Kaolack pour ñu dugg ci quartier bi quand on dit quartier du benn quartier sax parce que ñu dugg ci zone de responsabilité du poste de santé de Ngane pour sensibiliser population bi sur les mesures barrières xale yi ñu ngi sur dañuy dugg sur le terrain fépp fu ñu fekk lave-mains ñu confirmer remercier leen wax leen ne nañ continuer ci loolu fépp fu ko amut it ñu digal leen souplement pour loolu am euh, veiller également ci masques yi surtout ak euh, ñi nga xamante ne amuñ lave ñuy saxo di laal gel hydroalcoolique loolu mooy Euh, objectif manœuvre bi cette année. donc dañuy dugg ci biir quartier dans la zone de responsabilité de du poste de santé de Ngane. loolu on l'a fait en collaboration avec le médecin chef du district sanitaire de Kaolack. Euh, pour ñu réaliser activité bi. cette lu tuuti la ci maanaam du priorité la priorité donc mooy sensibiliser population bi. mais dana am tuuti geste de premier secours parce que nag euh, lépp lu mu ñu muñ a buñ ci greffé leneen it danañ def suñ cosaan mhm. danañ ci ñam tuuti loolu moo waral mu mujjee loolu mhm. mais danañ nekk sur le terrain ba ay waxtu yu bëree bëri recueillir des informations de la population mhm. danañu mun a permettre également ñu xam euh, population bi nan la comporté wu euh, mu nekk sondage Euh, buñ paree danañ woon médecin chef de district ne ko ah population bi nekk dans la zone de responsabilité du district kat ñu ngi respecté mesures yi wala respecté wuñ ko danañ xam effectivement au niveau de chaque concession lan lañ fay def loolu moo waral vraiment ñu dugg ci quartier bi pour informer ñëpp sensibiliser leen ci li nga xamante ne est-ce que ak jamono ji euh, communauté bi maanaam euh, dana leen accueillir ñi nga xam ne moom waaw communauté bi danañu accueillir parce que démb bi ñuy yëgsee rek la chef de village yónni ndawam moom moo ñu accueillir yónni ndawam yónni rakam ñu ñëw fii teew mu accueillir ñu vraiment dalal ñu remercier ñu également ci initiative bi. bi ñu ñëwee egalement infirmier chef de poste bi ñu woo ko mu rafetlu moom itam action yi ñuy def waxatuma la nag médecin chef de district nga xamante ne. moom moo appuyer techniquement li nga xamante ne moom la ñuy def. peut-être ñu jeexalee ci ki bu li jeexee de doon continuité ak euh, ci seen relais yi. waaw naka jëkk nag croix rouge mu ngi ci. parce que foo dem boo demee par exemple ci contexte bu bees bi ñu am mooy la réouverture des classes d'examen école boo dem da fa fekk au moins benn élément croix rouge muy veiller ci dispositif yooyu waaw tey jii. samedi la yenn école yi sax dinañ ñàkk ay volontaires yu fa nekk maanaam lycée yi jàng samedi mhm. volontaires ya fa doon intervenir am na ci volontaire yoo xam ne ñu ngi fii tey lycée yooyu danañ vraiment euh, ñàkk volontaires yooyu mais euh, traditionnellement et d'habitude tous les volontaires sont au niveau de toutes les écoles waaw fii la Ndofane Thiaré Gandiaye partout dans le département de Kaolack les écoles am na ay volontaires Croix-Rouge ñuy liggéey bi nga xam ne Croix-Rouge mu ngi koy liggéey au niveau de la région depuis la riposte contre la Covid defe naa ne def na léegi plus de quatre mois mën nañ jàpp ne c'est depuis le 4 mars depuis Magal Porokhane la Croix-Rouge Kaolack démarré mën nañ ne les premiers acteurs qu'on a dans la région c'était les volontaires de la de la Croix-Rouge et depuis lors élément courage yi yendelatuñu fanaanatuñu guddi ak bëccëg ñu ngi ak ñun ci terrain bi ñu ngi ak ñun ci site de confinement des contacts ñu ngi ak ñun au niveau di CTE ñu ngi ak ñun ci terrain bi te li ngeen def ndey nii wane na ko firndeel na ko parce que jël poste bu mel ni Ngane avec deux grands quartiers ngeen mobiliser tous les volontaires pour def des visites à domicile pour l'ensemble de la zone de responsabilité ça ça montre déjà que au moins on aura euh, une dizaine de milliers de personnes qui seront touchées et sensibilisées président Mbagnick ne moom duñ ko gërëm parce que il est déjà membre du comité régional de gestion des épidémies et tous les vendredis ou tous les jeudis nous sommes ensemble au niveau de la région médicale pour discuter des progrès de la riposte, d'identifier les problèmes et essayer d'apporter solu des solutions. Et même, il est toujours du côté de la solution. Donc, euh, collaboration, même, d'outils. Man, son première activité, je mener en tant que médecin chef district. Boulou, courage rouge, C'était la campagne DMM de 2018. Nous coïncidé avec rétention de données. Moi, une semaine après, nous avons DMM. on était obligé de se rabattre avec sur la Croix-Rouge activité boobu ñoom ñoo ko déroulé dans des conditions très difficiles mais les volontaires ak le leadership de Mbagnick et de son staff nous ont aidé à bien mener cette activité donc et dynamisme bu ma gis fan man Croix-Rouge fii Kaolack en tout cas lu ma neex la et ñu ngi leen di ñaanal ñu gën a jëm kanam arrière